asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki codice de la strada ah ñi ngi ñëwaat di mottali leçon biñ tàmbaloon keroog muy ci civile def beneen vidéo pour leeral lan mooy responsabilité pénale waa di wax ni rek euh, video yi nga xam ne ñu ngi koy dugal ci YouTube képp ku ko seetaan pour affaire yi mën a continuer na nga cliquer aimer euh, vidéo bi partager ko ba mën a commenter it du lay gën a baax rek waa léegi responsabilité civile doon nañu wax ni mooy responsabilité boo xamante ni euh, nit ki nga xam ne dafa def accident ci kaw strade bi am lu mu yàq comme mu yàq oto jàmbur wala matériel war ko rembourser kooku moo doonoon responsabilité civile nga xam ni euh, fay lay doon remboursement bu remboursé rek mu wàcc ko loolu civile la léegi nag ñu war a ñëw ci responsabilité pénale pénal nag moom loolu lu wàllu yoon la wàllu loi la loo xamante ni yoon moo lay topp léegi nag lan mooy responsabilità penale dafa ne la responsabilità penale connessa al sinistro stradale è e personale e perciò a carico del solo conducente mu ne responsabilità euh, penale bi nga xamante ni moom mooy jugee ci euh, accident ci strada bi moom c'est personnel maanaam ki nga xam ne moo def accident moo tooñ moo def accident bi moom moo moom rek lay concerné waaw mooy para mooy coo il solo condition mooy ki doon dawal ki nga xam ne moo doon dawal moom la concerné nee na essa sorge loolu nag mi ngi amee ci bu fekkente ni qualora vengono violate norme del codice pénal bu fekkente ni nit ki dafa violé norme code pénal pas code code de la route mais code pénal mu ne tamit si il sinistro provoqué lésion grave à personne bu fekkente ni accident bi dafa indi gaañu gaañu yu métti am gaañ ay ñu ñoo xam ne dañ gaañu gaañu yu métti loolu pénal boo lay taxaw néew nañ la ci civil bi bu fekkente ni lésion de lièvre yi la lésion de gaañu gaañu yu ndaw yu ndaw ay xoos-xooso yooyu mën ngaa fay nit ki mu dem faju amul problème mais bu fekkee dafa gaañu blessure yu metti nag foofu pénal di daal di taxaw war a mun a in caso di omicidio colposo wala euh, am ku ci dee. te nit ki nga xam ne moom moo provoqué euh, accident boobu ba nit kooku tamit pénale moo fay taxaw nee nañ la non è vero che sorge nei confronti del proprietario del veicolo circonducente non è dëgg bu nee la pénale bi ñu ngi koy teg ci kaw ki nga xamante ni moo moom oto bi bu fekkente ne kii doon dawal gisuñ ko xamuñ kan la woon par exemple euh, nit nga jox nit oto mu dem def accident rey nit ñu war koo topp ci yoon bu ñu fekkee ne xamuñ kan moo doon dawal oto bi du te du tax ñu jël responsabilité pénale bi teg ko ci kaw ki nga xamante ni moo moom oto bi la responsabilité pénale est exclusa mu ne ñi ngi dàq nag responsabilité pénale fii yi nga xam ne du fa am mooy quando il fatto non sia considerato un reato bu fekkante ni fee yi accident bi jàppewuñ ko ab reato maanaam wàcc wàcc yoon jàppewuñ ko loo koo xam ne dafa jéggi yoon code code pénal quando il fatto dipende da causa di forza maggiore bu fekkente ni accident bi euh, lu mel ni euh, causa force majeure mooy loo xamante ni yow amoo ci amoo ci responsabilité par exemple tremblement de terre terremoto wala loo xam ni dafa ngeen nekkoon ci benn pont pont bi màbb nga oto bi daanu ci beneen oto wala lu mel noonu rek wala ngelaw lu metti ñëw këpp oto bi mu dal ci keneen nit faatu bi foofu ki nga xam ne moo doon dawal moom amul ci responsabilité waaw wala quando viciano danni involontari alle cause bu fekkente ni dangay yàq tamit ay matériels yoo xam ne teyoo ko foofu mën nañu wax ci civile waaye pénale amul foofu ndax involontario la non è vero che si esclude quando ci sia stato il risarcimento del danno o quando sia prestato soccorso alla vittima du dëgg bu ñu la dañ koy dàq bu fekkente ni euh, da nga remboursé yàq-yàq yi nga xam ne moom nga def danga nga ko fay wala ki nga xam ni moom nga gaañ da ñëw sove ko loolu lépp baax na waaye nag du te pénale bi moom bu fekkente ni da nga def da nga wàcc yoon il faut que bi topp la chi è penalmente civil e civilmente responsabile di un sinistro ki nga xam ne dafa boole responsabilità penale ak civile nag kooku li nga xam ni moom mooy mooy dal ci kawam mooy est sujeto alle peine previste del codice pénal moom code pénal peine yi nga xam ne moom la wax daan yi nga xam ne moom la peine code pénal teg danañ ko teg moom et tenuto al risarcimento des danni dana en plus de ça dana rembourser yi xamante ni moom la yàq qualora abbia violato norme del codice della strada è soggetto anche a responsabilità amministrative bu fekkente ne nag dafa violer ay normes code de la route tamit moom danañ ko teg lu ñuy wax responsabilité administrative et quindi alle relative sanzioni kon lu lu xeetoo ak ay multoog ay ay verbal yoo xam ne dañ ko koy bindal pour mu fay ko loolu tamit mën na ko cee fekk mu ne può incorrere nella sospensione revoca o nella revisione della patente di guida mën nañ ko mën nañoo suspendre wala ñu nangu révoca mooy ñu nangu kam complètement wala ñu wax ko mu dem jàngiwaat def révision patente bi non è vero che è sempre soggetto all'arresto preventivo lu dëgg bu ñu nee la nag képp koo xam ne dafa def dafa amee responsabilità penale dañ koy def arresto preventivo ma dañ koy téye tëj ko ci benn temps e che non può continuare a guidare veicoli stessa euh, della stessa categoria wala ñu ne la o oh, véhicule bi mu defee yoon accident bi mënutu ko dawal loolu tamit non vero ça dépend mais nag non è sempre così waaw loolu moo doon euh, responsabilité pénale xam naa benn yoone euh, danañ ñëwaat ci ci civile waaye nag yëf yi képp koo xamante ni intéressé na la te nga bëgg ci lu gën a yaatu euh, contactel Mohamed Seck ci 389 05 28 744 ci whatsapp wala wala appel normal bu ko defee ñu gën la leeral nooy def ba gën ko suivre jërëjëf